Père Gaston te defe naa ne yow li may wax rek grand sal wax na ko léegi da ngaa mbappat hmm. Père Gaston <laughs> dama lay bàyyi nga dem rek xam nga olof dane lu waaye doonul na leer ndax day sax waaw loo doonul boo ko fóotee mu set maa la dégg te muy dëgg dégg nga ma bu baax waaw kon makan bu defee li mu def nii dafa wàcc dafa delloo mbattu si ca ndaa la mhm. kalaaf 2006 waaw fi la ñu fekk waaw boole crème lamb ji ñëpp ne manta ne ne mënul ne ma fekk ko Medina ci ñoom sama papa Jacques Diène. Mbaaru Ménager xanaa. Mbaaru Ménager ca Baye Jibi Guèye. Tilleen ca Baye Jibi Guèye. man ñoo ñoo ma yar sama maam yooyu. <laughs> ma fekk leen fa. <laughs> waaw ñu bind kalaaf bi. waaw Gaston ne ku xam mbër <laughs> waxal. xam nga loolu nit ku yaatu moo ko mën. Mm, waaw ñuy tracé diw ak diw diw ak diw ba ne Yékini Junior ak Balla Gaye Jacques Diène ne déedéet ñoom ñaar ñëpp maa leen yor. man oh. kon génne leen Balla mu xaar déwén ngeen dugal Tapha façon daal di gestu def ni ne wax nga dëgg te lamb ji bool bool yi dañ cee bokk hmm. ah. kon yow yaa gindi lu Balla Gaye ci suur mu ngi indi si ñoom man ba déwén comme moom Zac Diène yow yaa yor Yékini Junior mu ne déedéet mbay yaa ñu ko yor mais ñoom ñaari mbër yëpp nekk ci yoon ca kaw la ñuy bëree. seen xaalis feneen lañ koy am na ko yàlla sama papa jooju moom mu ko jox micro ma wax. père Zac. ma ne ko pourquoi pas Tafatine mu ne wax nga dëgg ah ci ban poul maa ngi ko da koy dugal si ñoom Issa Pouye Yékini Junior ak Lac de Guiers 2 mu mais yow xam nga làmb ma ma ne ko waaw man fii laay fooyee ci paay mu reetaan ndeysaan Père Gaston kon yow poule booba yaa ko defar wallaahi wallaahi poule Tafatine Issa Pouye Lac de Guiers 2 de Guiers 2 Yékini Junior Yékini Junior ñu départ le 10 décembre 2006 macha allah Gaston def loolu mhm. teggiwul tànkam mhm. ñoom Zallo ñu jël na leen kalaaf mhm. Gaston tey képp ku nekk ci làmb ngay amateur ngay supporter ngay mbër ñëpp a ko war a ñaanal mu wér parce que yaakaar naa xaalisam bi nag dugg na ci kër yi mu duggul ci làmb bariwul bu dee am na ci kër yu mu duggul bariwul donc yàlla yàlla fëgg boppam mu delluwaat ci sagoom ba dellu si ci suñuy loxo ci barke yaa rasulallah mais makan ñu koy ñaanal mu ñëw tamit nekk xale ba pare am ambition. am ambition am ngëm-ngëm bi ndax ku ne xam na ne làmb metti na. làmb metti na làmb bëri nay gàllankoor làmb bëri nay teq-teq mais lépp lu am mi ngi koy gérer. ndono gi ko fi papa mbayin mi ngi koy sàmm wax dëgg yàlla li zàllu wax mu jéewul puso bi mu réer kon ñu ngi koy ñaanal yàlla. drapeau sëñ Modou Niang la ko tuddee. xam nga sëñ moo Modou ñaa man dama ko daan wax naan kii mooy borom combat cent franc yi. su ma ko waxee rek ndeysaan mu songu ma nii parce que sëñ Modou Niang moo fi def. di tëgg 10 combats di jaay billet 1000 francs. waaw waaw ah, loolu de am na. 10 combats di jaay billet 1000 francs. <laughs> moo tax nga ne ma ne leen sëñ Modou Niang combat 100 francs la ñuy jaay. Hmm. mu réer ndeysaan ba bëti di jooy moom tamit nit ku oyof la woon. nit ku humble parce que ñun bu ñu ñeme woon tey làmb nekk ay xale yu jigéen nekk ay ndaw. Hmm. ñeme fréquenté làmb ji grâce a suñu papa yooyu. Hmm. sëñ Modou nekkul nit ku am yërmande. dama ko fekkee nekk nit ku am yërmande koo xam ne ku mu gis dafa jàpp ne moom moo war a jox ñëpp kenn waru koo jox soo ñëwee ci moom ne ko père damaa bëgg a bëri rek ku la yor la leex kan mooy sa manager nga ne nanga mu la wax a Mata Ndiaye wala mu la waxal ak diw su la mënul tëgg Dakar yóbbu la làmbu banlieue waaw waaw làmbu banlieue kon mu ngi dox ku ko delloo njukkal da dellu mbaat su ci ndaal yi kon makan bu defee loolu mhm. fay na naar bi xoromam te yàlla na ci yàlla defal réussite totale amiin macha allah am na solo. grand zal ulimata li mu def ci témoignage fekkee maa fekkee bakkan lay laaj Père Max Bargane na koy wax. waaw li mu wax nii kenn mënu ci tegg dara. waaw man nag yàlla dafa dogal. waaw yow moom gas da laa tëgg yaakaar naa. gas moom ma ëpp lu mu ma tëgg. moom ak moo c'est ça ma Maodo Niang moom mosuma tëgg. jotu la jotu laa tëgg. ko tëgg quoi mais. Mhm. jotuma tëgg mais produire na ay champion. yu bare bare kay. bare bare bare. fii booy nga gis ne. guy gi ne nag këram laa daan dem di sangaar xar yi pour combat. pour am combat non dëgg la. Mhm. ay Balla Gaye ay boo yooyu yëpp dëgg dëgg na leen. Mhm. Modou suñ Modou ñaa boo xool am na taa moo Gaston ñoo fi nekkoon. waaw loolu am na. Mhm.

loolu la daan dundee. loolu la daan dundee. témoignage si rafet na. te mhm. te nit ki yaakaar naa defalu leen lu tax ñu koy témoignage loo xam ne nekkul. déedéet yal na ko yàlla yërëm. amiin amiin ko ci àddinaay firdawsi ci barke Seydina Muhammad di nuyu doomu Njaga Ñaŋ père Gaston na parce que ñun làmb rek la ñu am te ñoom yaakaar naa ñu téye làmb tey ba nga mun fay dégg yeneen promoteurs yi. Mhm. donc tey ñu mel noonu tamit dañ leen di ñaanal yàlla yàlla suturaal leen. Mhm. mel ni Gaston yàlla suturaal ko suñu Modou Niang comme yàlla jël na ko yàlla yàlla wér-gu-yaram dugal ko ci àddina grand Zal xam nga kii tamit des fois day faral di wax ci làmb Moustapha xam naa da nga ma koy may rek mës naa ko fi invité xaadim